jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ci wasaare làmp ñu leen di nuyu yéen mbokki internet yëpp ñu nga xamante ne nii yéen a ñuy bàyyi xel saa su nekk di ñu topp di ñu encourager mm, di ñu yokk doole ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu Sénégal yëpp àdduna wërngal këpp sax la ñuy wax fépp fu sénégalais nekk ñu ngi lay nuyu euh, di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan fépp. jàngoro ji nga xam ne dugg na fi di coronavirus yal na ci suñu borom. Mm, teg loxoom saafara ko ba mu saafarawu mu jël ci mboolem jullit képp koo xam ne jotagoo ci yal na la na la ump yal na ko suñu boroom génnee ci ni mu gën a gaawee mu ump ñëpp euh, ñi ñi mu jot a jàpp aussi euh, yàlla wëral leen bañ dellu ci seeni njaboot ñu ñaan aussi mu gaaw fee jóge ba ñu delluwaat ci suñuy occupation delluwaat ci suñuy yitte euh, ba ñun ñu mën a delluwaat ci làmb parce que nag làmb dafa nekk loo xamante ne nii tey. Euh, ñun ci la ñuy yëngu am ñeneen ak ñeneen ñu ciy yëngu donc ñu bëgg ko yóbbu foo xamante ne nii romb na ñun fi nu ko fekk donc loolu moom moo tax ñuy ñaan rek euh, jàngoro ji teel fay jóge ba ñu continuer waat suñuy activité mais aussi continuer ko ci benn rythme parce que làmb ji dafa war a dépasser niveau bi mu toll dafa war a àgg ci beneen niveau euh, loolu du ñàkk benn bés ñu ñëw indi ci waxtaan. jàngat bu yaatoo yaato yaatu comme ni ñu koy defee saa su nekk man ak baay Djili ñu koy nuyu de passage Baye Djili euh, di nuyu Ousin di nuyu aussi faatiment leen jaajëfal ñoom ñëpp ñi nga xam ne tey ñu ngi ci wasaare di fi yëngu euh, noonu mbokk yi dañ ñëw ak yéen ci waxtaan bu bees euh, rubrique boo xamante ne nii mën naa ne ñu ngi koy dippee le réglement le réglement nag buñ ko waxee xel yi dinañ dem. ci benn mbir boo xamante ni dañu ko teg ngir lu jëmale affaire boobu kanam parce que règlement mën naa ne ci lépp la am ak façon tur bu ne bu ñu koy woowee mais ci lépp la am tey dund bi ñuy dund dafa am ci règlement bu nu ko teg borom bi sax wàccewuñu ci kaw suuf rek ngir ñu topp ci lu nu neex wala leneen ak leneen mais am na ay règles yu mu fi teg yoo xamante nii ci la ab jullit war a jaar donc état bi aussi am na ay règles yu mu teg yoo xamante nii ci la citoyen war a mën a jaar mais ci biir loolu gis ngeen couvre-feu bi nga xam ne fu vingt jotee ñu daw fatu six heures ñu génnaat donc mbir la boo xamante ne nii ab réglement la décrété nañ ko donc danu koy respecté kon réglement dañu ko war a respecté mais bala nga respecté mbir il faut nga xam ko. ci loolu ci la ñu bëgg di dugg a génn point par point di waxtaan a yéen ci réglement bi nga xam ne moom moo tënk képp ku nekk ci wàllu làmb que ça soit ngay manager ngay promoteur ngay mbër loo ci mën di nekk rek réglement bi nga xam ne moom moo la tënk ci la ñuy bëgg di waxtaan di ci jariñante ci biir loolu mbokk yi dinañ def ay waxtaan yu baree baree baree bari pour yenn ci mbër yi war mën a comprendre bu baax euh, fan la ñu teg seen i tànk danañu waxtaan ci lépp luy réglement boo xamante ni CNG moo ko teg ci làmb ji ngir ñu respecté ko euh, ñu fexe ñépp xam ko ngir mën koo respecté réglement boobu bokk na ci tey li ñuy wax statut du manager muy manager bi nga xamante ne nii tey mu ngi manager mbër lan moom mooy ay àqam ak ay yelleefam lan la war a topp lan la war a bàyyi lan la ko réglement may lan la ko réglement xañ dinañ ci waxtaan dinañ waxtaan ak yéen aussi ci statut du lutteur muy mbër mi ci boppam lan la ko réglement may lan la ko xañ lan lay def ba réglement topp ko wala daan ko wala leneen ak leneen dinañ ci waxtaan waxtaan aussi ci li ñuy wax statut du promoteur wala euh, waaw statut di promoteur mooy ki nga xamante ni day tëgg làmb euh, dinañ waxtaan ak moom Euh, dinañ waxtaan ci statem moom lan la ko réglement may lan la ko réglement xañ ainsi donc yooyu la ñu fas yéene waxtaan ci ay waxtaan yu baree baree bari mais tey dañuy ñëw jukkil leen benn ci point yooyu euh, point bi ñu leen di jukkil tey mooy statut du lutteur muy mbër mi ci boppam parce que euh, mën nañ acteur principal ci làmb mbër la manager bu amut mbër mi mën na manager boppam promoteur bu amul mbër mi mën na tëgg combat CNG bu amul làmb mën naa am parce que bu njëkk làmb da daan am sans CNG am donc mbër moom mooy acteur principal la euh, leneen li da koy gunge donc bu CNG ñëwee euh, mën naa ne sport bi day gën a ñoŋ day gën a baax bu geur ñëwee day tax mbër mi gën a mën a concentré wu ci li muy def bu promoteur ñëwee day tax mbër mi léegi autonom mën a dox ay mbiri boppam sans autant que muy régler ay combat wala leen nag leneen mais mbër mi mooy acteur principal bi moo tax ci moom la ñu bëgg a njëkkee tey mbër mi dafa am lu ko réglement may bu ngeen demee ci réglement CNG yi di ngeen gis euh, fenn fu ñu def statut du lutteur statut du lutteur boobu am na ay articles yu ñu teg article par article article yoo xamante nii dina mën a tax mbër mi xam lan la ko réglement may ak lan la ko réglement xañ bi ci njëkk mooy. pour nga nekk mbër il faut nga am licence il faut nga am lisance mooy bi ci njëkk pour nga am licence aussi dafa am noo koy ute parce que dafa am ay xeeti làmb yu am euh, làmb yoo xamante nii bu ci nekk ak nanu koy pratiquer xeeti làmb yi am mm, mën nañ ne tey boo demee ci CNG ñetti façon bëre moom moo fa am am na bu ñuy wax avec frappe bi ñuy bi ëpp ci li ñuy def am na bi ñuy def aussi lutte sans frappe mooy bi mooy bi ñuy wax lutte simple bi ñuy wax euh, mbapat am na aussi euh, bi ñuy wax lutte olympique mooy bi nga xam ne nii moom lañuy def ci jeu jeu olympique yeeg yooyu donc ñetti xeeti bëre yooyu pour nga am licence il faut nga xam ci ban euh, xeetu bëre moom nga bëgg licence d'abord bu dee tey ci lutte avec frappe nga bëgg licence il faut nga def demande bi demande bi moom moo ci jiitu donc demande bi ngay def nekkul demande boo xam ne da ngay ñëw bind ko ak sa loxo non mais dafa am ay papier yooyu fournir pour que nga mën a am licence papier yooyu ngay fournir bokk na ci tey bu fekkee ne licence bu bees ngay wut bu dee licence bu bees ngay wut moom moom la ñuy wax délivrance bu dee délivrance la. il faut nga am sa photocopie carte d'identité il faut nga am certificat médical boo xam ne nii médecin bi la ko délivrel médecin la bu CNG reconnaître mais warta nekk tey nga dem ci benn post de santé ñu wutal la benn certificat médical comme yi ñuy laaj jaaykatu lekk yi yi leen service di d'hygiène di laaj ak yooyu non mais da ngay dem ci benn médecin boo xamante ne ni tey euh, CNG reconnaître na ko pour mu mën laa defal visite médical nga def visite médicale boole ko ak sa photocopie carte d'identité boole ko aussi ak photo soit quatre photo wala deux photo lum ci mën di nekk boole waale ko aussi ak dix mille francs pour délivrance bi mais ci loolu day fekk association bi nga bokk mu affilié wu ba noppi association bi bu fekkee ne dafa affilié wu ba pare yow nga soog wut papier yooyu pour wut licence bu fekkee ne association bi affilié na ba nga wut papier yooyu ba pare ba wut licence donc euh, am na luy tax ñu accorder la licence bi mooy lan mooy tey licence ki ko war a wut ci lutte avec frappe dafa war a nekk mbër moo xam ne nii ëppal na wala matal na dix-huit ans ba pare te yées na quarante-cinq ans fukki at ak juróom-ñett ci la tàmbalee pour nga am licence avec frappe ñeent fukki at boo ko amee ak juróom bu boobaa mënatoo am licence ci intervalle boobu ci nga mën a amee licence bu fekkee ne aussi condition yooyu noonu remplir nañ ko dafa am délai boo xamante ne nii moom lañ la may pour que nga mën a déposer loolu ñuy wax délivrance délai bi ñu la may mooy par exemple mu ngi commencé bu saison bi ubbee ba le 31 mars diggante boobu noonu lañ la may pour licence boo xam ne licence bu bees la da ngay déposé bu nekkul licence bu bees nag renouvellement lay doon renouvellement mooy koo xam ne amoon na licence bay doog amaat licence kooku nga xam ne day renouveler licence am dafa am lu nu koy laaj lu bokkut ak li nu ko laajoon ci ba muy wut délivrance mooy lan mooy licence bi nga xam ne nii am na ko ba pare moom lay indi kon du jar muy indi euh, photocopie carte d'identité du jar mu koy indi licence ba lay indi rek du jar muy indi photo aussi day indi licence ba indi li ñuy wax dix mille francs indi visite médicale pour ñu mën koo wutal renouvellement donc loolu lay soxla mais foofu aussi pour mu renouveler day fekk aussi association bi mu bokkoon ba wute fa licence association boobu renouveler affiliation pour moom mu mën a renouveler licence am donc lépp mu ngi tënku tey ci association bi nga xam ne mbër mi mu ngi ci bokk bu ko defee bu association bi nekkee en règle mbër mi moom aussi dana mën a nekk en règle kon bu association bi nekkut en règle mbër mi aussi du mën a nekk en règle association bi mooy écurie bi wala école de lutte bi euh, wala académie bi parce que mën nañoo dem ba tollu période boo xam ne académie la ñuy am donc. bu nekkul en règle rek mbër mi du mën a nekk en règle donc il faut écurie bi nekk en règle pour que mbër mi mën a nekk en règle moom it mais bu loolu yëpp amee mbër mi tey bu toogee saison benn saison boo xam ne ni renouvelé wut licence am moom libre na comme daaw la am licence ren renouvelé wut licence am bu déwénee day libre écurie bi du ko mën a topp ci dara fu ko neex mu dem écurie bu ko neex mu dugg école de lutte bu ko neex mu dugg association de lutte bu ko neex mu dugg académie bu ko neex mu dugg parce que euh, problème la ñuy bañ ndax am na ci écurie yoo xam ne boo ci xasee signé licence pour nga génn fa c'est tout un problème mën nañ laa koñe boo bëggee démissionner dañ mën nañ laa koñe ba doo démissionner bu boobaa ay gàllankoor lay am mais mbër moo ci bëgg a démissionner sa écurie teg la ay chantage yoo xam ne bokkuwut ak sa bëgg-bëgg mën nga exempter benn saison maanaam nga toog benn saison boo xam ne renouveler woo sa licence nga def ko saison blanche année blanche nga perte saison boobu ca déwén sa nga mën a libre pour mën a dem écurie bu la neex digaluñ ko kenn nag mais au cas où parce que protéger wuñ bëri bàyyi écurie protéger wuñ écurie bàyyi mbëri mais dañuy protéger ki nga xam ne ni dafa nekk ci yoon dañu bëgg koo xañ dëggam bi nga xam ne ni moom la am. beneen bi mooy tey bu fekkee ne mbër mi day démissionné ci écurie jóge ci écurie A jëm ci écurie B bu boobaa dafa am lu ñu koy laaj mais dafa am période boo xam ne nii aussi moom la ko mbër mi war a mën a def saison bi mu ngi daw mbër mi mu ngi ci écurie A mbër mi nekk na ci écurie A ba bëgg a jóge ci écurie A dem ci écurie B mu ngi koy def diggante le premier août. bu saison bi tëjee le premier août ba le 31 octobre intervalle boobu la fi mbër mi am droit demander démission pour mën a rejoindre beneen écurie te bu fekkee ne day demander aussi euh, démission pour jóge ci écurie boobu day am ay dédommagement yoo xamante ne nii écurie bi moo ko koy teg dédommagement mooy ndàmpaay écurie bi danaan ko comme da nga fiy jóge da nga may jox ndàmpaay temps ndàmpaay loolu nag ça dépend ci écurie ba. écrit ba ak mbër ma ñoom ñoo ciy waxtaan ba juboo ci pour mu jóge fa loolu la léegi nag bu fekkee ne dédommagement bi am na il faut mu am aussi benn lettre bu désengagement boo xamante ne nii président écurie bi wala président école de lutte bi wala président académie bi moo koy bind ne mbër sàngam libéré naa ko waxtaan nañ ba juboo libéré naa ko léegi libre na pour mën a dugg ci association bu ko neex bu boobaa nag mbër mi mën a def ay pexem dem ci beneen association ba ko doy wala beneen écurie ba ko doy pour mën leen a jébbal ay kayitam mën a bokk ci écurie boobu kon loolu leer na bu loolu amee aussi mbër mi bu demee ci écurie boobu day wutaat licence bu bees day wutaat licence bu bees parce que licence bi mu mujjee am noonu ci turu beneen écurie la ko amoon te jóge na ci écurie boobu donc dootul mënatee def renouvellement mais day def délivrance lay def ndax dem na ci beneen écurie bu demee ci écrit boobu nag ca lay def délivrance wut kayit yi mu wutoon bu njëkk ñu wutal ko licence bu bees kayit yi mu wutoon bu njëkk wax nañ leen ko mooy d'abord il faut écrit ba mu jëm affilié ba noppi mu jël photocopie carte d'identité am boole ko ak ay photoom boole ko aussi ak visite médical boole ko ak lettre désengagement bi nga xam ne nii président bi mu écrit bi mu jógee bindal na ko ko boole papier yooyu déposé ñu wutal ko licence bu bees mu tàqali ko ak écrit bële donc pour mbër yi pour mu leer seeni bopp bépp écrit boo xamante ni tey da leen a xañ à ce que ngeen war a génn ci écritam te bëggatu leen fa nekk gisatu leen fa seen bopp ngeen bëgg a génn mu taxe leen loo xamante ni metti na te mënu leen ko bu leen neexee saison ba ca topp ngeen bañ a wut licence ngeen exempté def saison blanche bu saison boobu jàllee dangeen di mën a libre pour mën a dem ci association bu leen neex parce que ci ay rumeur dégg nañ fi yenn écurie yoo xamante nii taxé nañ mbër xaalis bu baree baree baree bari mbër mi dem na ba gisatu fa boppam ne daa bëgg a génn ñu taxé ko xaalis bu bari ba mbër bi il est obligé mu des ci écurie ba parce que mën ta fay loolu te desam ci écurie ba du des bu ko neex parce que xolam newatu fa donc pexe boo pexe bi mooy bu loolu amee. nga toog benn saison boo xam ne doo ko bëree bu saison bi jàllee nga démissionné donc euh, beneen bi ma astafurlaa du ma ne démissionné sax parce que da libre dootoo démissionné da ngay libre da ngay dem ci ba nga bëgg nga wut fa bu bees bu boobaa du jar sax président bee di la bindal ay lettre de désengagement yooyu noonu parce que valable ci écurie boobu écurie boobu mënu laa poursuivre ci leen mënu laa topp ci leen beneen bi mooy dafa am ay mbir yoo xamante ne ni mbër mi aussi war na ko mën a respecté. ci biir làmb moom la article 7 bi di wax ci statut du lutteur li mu war a respecté mooy ay engagement engagement yi nga xam ne nii mbër mi jël na ko vis-à-vis ak promoteur bi tëgg kombaam engagement yooyu soit mbër mi moo koy jël wala mandataire mbër mi mandataire u mbër mi moom mooy tey euh, ki nga xamante ne nii moom mooy manager am moo koy signal ay combat kooku mooy mandataire am engagement bu manager bi jël ci digganteem ak promoteur bi mbër mi obligatoirement da ko war a mën a respecter pour bañ am ay daan bu ko respecté wu dina am ay daan euh, beneen bi mooy mbër mi dafa war a def preuve de discipline mooy wone ak yar gu mat sëkk ci biir làmb ak ci yenn ndaje yi nga xamante ni ay ndajey làmb la parce que foofu bu fa defee preuve d'indiscipline rek maanaam taxaw taxawaay bu mu warta taxaw ay daan mën na tegu ci kawam. daan yi tegu ci kawam nag article huit moom moo ci ñëw moom moo ko expliqué mooy mbër mi bu fekkee ne tey dafa jaay reewande ci làmb wala mu def naka su noonu ci làmb wala mu def mbir moo xamante ni CNG mën na ko cee topp bu boobaa CNG mën na koo topp teg ko ay daan daan yi koy teg nag mu ngi tàmbalee tey ci lu ci jëm ci perte genn wàll ci. reliquam bi mu war a jot wala mu perte lenn ci reliquam bi mu war a jot wala beneen daan bi mooy mu perte reliquam yépp nga xam ne du jot benn reliquat wala aussi ñu interdire ko pour mu wàccati ci benn ndaje làmb ñu interdire ko tere ko mu wàccati ci géewu làmb wala demati làmb boobu ci daan yi la bokk beneen daan bi booy ñu tere ko mu duggati sax ci làmb parce que fee mën nañ laa tere nga wàcc géewu làmb bi mais nga ñëw yëg kaw tribune mais mën nañ laa tere ci boobam arène bi tere la ko définitivement boobu aussi mën naa nekk mais am na beneen boo xamante ne nii mën nañ laa tere à ce que yow wala ñu suspendre la suspension boo xamante nii suspension temporaire lay doon ñu ne la diir bi ba diir bi CNG suspendre na la wala ñu jox la suspension à vie suspension boo xam ne nii sa diir diir bi ngay dund yépp de suspension bi dalay dalay topp du la wàcc benn yoon ba ba ngay sàngoo suuf donc yooyu bokk na ci daan yi nga xamante nii tey euh, boo boo doxalut doxalin wi rafet sa diggante ak réglement bi loolu mën na la ci fekk ñu baamtuwaat ko mooy perte bi ngay perte lenn ci sa reliquat wala nga perte sa reliquat yépp beneen bi mooy ñu tere la nga wàcc ci géewu làmb ji wala ñu tere la làmb ji ci boppam wala ñu suspendre la benn diir wala ñu suspendre la à vie donc loolu bokk na ci daan yi nga xamante ni euh, moom la ñuy daan mais daan boo xamante ni daan nañ ko mbër ci daan yooyu aussi article 9 dafa ne bu fekkee ne condamnation la boo xamante ni da ngay perte say liberté wala say droit civique bu boobaa automatiquement da ngay perte licence bi nga xamante ni moom moo nekk en cours pour mu leer bu fekkee ne CNG dalaa daan daan boo xamante ni dalay privé yow say droit nga war a wàcc ci làmb ji ñu ne doo wàcc ci làmb ji dañ laa teg daan daan boobu la privé tey say droit day tax sa licence bi nga am ci saison boobu da nga koy perte CNG day téye licence boobu CNG da koy téye da ngay perte licence bi ca sa beneen saison ba ngay mën a amaat beneen licence donc mu ngi noonu. Euh, mbër moo xamante ne ni tey li ñu wax am na ay lënt-lënt ci boppam dese naa leer ci moom euh, numéro bi affiché ci suuf noonu rek bu ñu ci contacter incha allah danañ fexe partager ak moom li ñu jot a xam as tuut euh, ñu jéem a weccoo ay xalaat jéem a gindeeku wante noonu lay demee parce que sunu sunu sunu sunu cër mooy ñu fexe ba làmb di avancer. ku ci nekk ci domaine bi nga nekk nga fexe ba làmb di avancer parce que am na ñoo xamante ni tey amuñu accès pour mën a dem CNG toog ak ñoom laaj leen ñu expliquer leen affaire yi ni muy demee donc ñun ñi nga xam ne ay reporter la nekk sur le terrain ñun ñoo leen gën a jege parce que chaque jour ñu ngi toog ak mbëri ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi saafonte ak ñoom ñu ngi. ñu jokkoo ak ñoom donc ñun ñoo leen gën a jege pour ñu laaj ñu ci yenn yi nga xamante ne nii day dem ci seen carrière lu jëm ci seen wàllu carrière donc mu ngi noonu cant ngërëm ñel na leen ñu ngi leen di ziyaaraat bu baax di jaajëfal gaa yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun boobaak léegi dañu teewlu di jéggaluwaat bu baax a baax a baax a baax nag di jéggaluwaat bu baax ci guddal bi nga xam ne nii guddal nañu ko mais di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan fépp ci àdduna wërngal képp fépp foo xam ne nii sénégalais nga fa rek yal na la fa jàmm fekk euh, képp kuy seetaan vidéo bi yal na la yàlla jàmmal jàmmal mboolem jullit jàngoro ji mu teggil ñu ko ba mu set wecc ba mu ñu ba ñu delluwaat ci suñuy activité delluwaat ci suñuy mbir delluwaat ci làmb euh, yàlla defal ñu tawféex defal ñu sutura defal ñëpp jàmm ak salaam jërë ngeen jëf ba ëllëg incha allah comme li olof di wax rek lu jiw a jeexul jógu fa ëllëg dinañ dellu siwaat ak yéen ci yeneen statut yi nga xam ne nii énuméré woon nañ ko au départ muy manager bi promoteur bi ak ñeneen ak ñeneen donc noonu lay demee fii lay xewee ci wasaare làmb can dëngëlam ñeen la leen jërë ngeen jëf